We happy today with us ah. in this presentation. Ah. And listen to me carefully. Darakoki for Halloween English Club coming to show you the most important, the best and the biggest presentation in the world about English language. How is powerful, how is important to learn. So take your concentration. Take you silently. Take your finger there to following us carefully. Okay, that is okay for Harlem and You are welcome. Hello, Mr. Fawzi. Hi, Mr. How are you? How is your job? The job is going well. I didn't see you yesterday. Where were you? Yes, you are right. I had gotten there a meeting with somebody who wants to do trading. Yeah. Where they from exactly? Some of them from Gambia and from Malaysia. in these case, I big sum of money in our society. How much billion francs CFA. I hope that the hedonist will be happy for that. Of course, he will be of granite. Yes. Fall, Mr. Njai, how are you doing? Yeah, Mrs. Say, you are doing well. You are sitting down on money. Don't joke in me, Barton. Mr. Pa is right. Look at wonderful clothes and back. Don't your expensive car at the door. That my pay hasn't got his one. I forgive you, Mr. Njai. Yow moom jaayaate rek So, bref, Mr. Njai, waxal ak sa waa ji mu takk jabar daala mi sax xaalis lay am kër am oto bàyyi boppam si mbugalu àdduna mi I'm with you, you are right. Over, oh, try to do something, the waiting is long. No, don't worry, wait a few time, I am on the way. yow daal nii rek few time, few time, baa doo ko def much time. No, never, don't worry, right now. So yesterday, the headmaster sent me a message of appreciation for your good job. Yeah. Yes, thank you, thank you. Okay. You are very much of kin of. We are welcome, you are too. Goodbye. Thank you. I am going to my goodbye. goodbye. Sénégal daal moom loolu kenn da ngay liggéey ba bëgg a dee gars yi ñoom fii kenn di lekk sa xaalis rek yow yaa woon noonu de. waaw moo loolu de yow yaa woon noonu de. waaw mais. mais kii du xës ah. waaw xës la kay. xës. Ah, ok yaa ngi nii. Eh, ah, yaa ngi jàmm sax du baax. ah yéen ñii de. yaa ngi jàmm. nan la ma gën ñu ngi courant. Ah, ñu ngi jàmm gën ñaa leen gisee. ah ñu ngi jàmm ñu ngi jàng bi nii rek. bu yéen si jàng yi ba tey booy. ba tey kay ñu ngi ci jàng. non booy yéen mooy loolu quoi booy. booy jàng mooy loolu. yow nag temps yi ci la nekk. ah booy man bàyyi naa jàng bu yàgg booy. ah waaye ngeen temps ci loo jàpp ni. waaye business rek di yéeg a a nga wàccaale benn 1000 francs. am nga gën a xam yéen. waaw noonu lay demee waaye sant nii ngeen. mais ja da ngay ànd école rek. te mu bëggoon jàng rek. non booy yow ni Mister Fall boobu léegi dafa yor xaalis ba dox boo ko gisee nii non booy ful doo la laal booy. benn entreprise bu rëy lay liggéeyee booy. chaque semaine booy laal 3 millions 600 booy booy boobu temps dafa yor xaalis semaine 3 millions. 3 millions 600 laa lay tegal. par semaine par semaine par semaine ah. mais entreprise boobu ba tey ñu ngi jël. waaw ñu ngi jox numéro am su ko defee. waaw yow après nga dégg nga. waaw ñu dégg ah merci waay merci. ah balaa ngi nii. balaa ngi nii de. non yow Balla Balla daw jàng rek la mënoon. Balla kay noonu la bonee. mais surtout anglais bi anglais bi. non Balla da nga daan daw loolu loolu woy. Balla dafa bonoon ci anglais bi. deux fois dañuy ñëw man ak moom un la ñu am. Balla moom dama mos a bon. non non non vraiment loolu dëgg la quoi loolu dëgg la mais man dama bonoon rek mais musu bi noonu la ma bëggee woon. waaw ah, bilaay eh. musu bi dama bëggoon quoi. di conseil toujours del jàng anglais parce que anglais instant mooy langue mondiale temps loolu wax toujours quoi di conseil def yëpp mais man lu ma doon wax day dafa mel ay gëndale si man quoi dama doon bàyyi muy wax nii rek di jëlee day day wax di dugg fii di génnee fii quoi gauche droite day wax rek dugg génnaat jàpp ay caawale rek génnaat waaw après si kanam si kanam si kanam non booy bi du changé quoi booy bi non. Ah, Mr. Jai, what are you googling? That is a kindness of me. Thanks next time. Next time. Hello, Mr. Leo. Hi, Mr. Leo. How are you? the is going well, man. Okay. Yeah. Yes, yes. So, serving is a human Yeah. I'm no private customer. Yeah. Yeah, so uh, receiving yesterday is a confirmation of our driving customers yeah. from Gambia Empowerment and the people of society, no? Yeah, you are right. And also there are other customers who went to work with you in order to improve their business. Oh, yes, good morning, Mr. Jack. Thank you. For a good job. Thank you. Good luck. Next time. 어머. 어머. 따로 돼. 나 신혼에 태국 수학. entreprise. entreprise bi rafet na. non liggéey bi moom am dara la moom. hello good morning. hi good morning sir. sit down please. thanks. are you fine. yes we are fine thanks and you. fine what a big greatness to welcome you and our society the goal the first goal the first world trading. thank you for your kindness. sir. we have just to come to see the headmaster, please. Okay, no problem. Wait a few minutes. I am going. to care him for you. Hello, Mr. Ndao. Hello, Mrs. Sir. How are you? You have two guys here. They, they went to see you. Thanks. Thanks. Yes. you can go in. Thanks. entreprise bi moom liggéey bi moom am am dara la kay. am dara uh, Hello, mister. Hello. Good morning. I'm fine. Thanks. Uh, welcome, welcome. Sit down, please, mister. Thanks, thanks. Uh, how are you doing? We are doing well. we are doing well. after getting our diplomas with a big experience, today we are coming to get a job in your society. Yes. To participate in the development in the development of ourselves. Not only, but also we want to change our family situation. You know. Oh, they are big pleasure for me. yes, okay, okay. Can I order two papers, please? Six. You can? Yes. And you? Oh, no. Yes. Uh, no. Are you Mustafa? No? Yes, it's I. Yes, yes, yes. Uh, Bala, do you want to travel around the world with our society? là, a quand même Pourquoi tu n'étais pas à l'école Et j'espère que euh, tu avais l'opportunité de l'apprendre à l'université même. Donc, euh, votre CV me dit que vous êtes, vous êtes en informatique. Oui, effectivement. Et, comme vous le savez, votre, société est commerciale mondiale, alors que l'anglais est sans conteste la première langue mondiale dont tous les grands l'entreprise, l'entreprise Non, c'est pourquoi notre société a besoin que des gens jamais des qui culent les deux à la fois. Non? Parfaitement, parfaitement, vous avez raison. Je n'étais pas au courant de l'anglais à cet statut universel. Yeah. Mais monsieur, la situation de ma famille, la situation de ma famille est extrêmement dure.

bu toog jógal ñu dem mais wala bu toog jógal ñu dem eh non waaw. bokk naa dara bay ñaan sax di ñaan loolu nag amoon naa taw jàpp ne amoon naa taw jàpp ne amoon naa opportunité 3 millions 600 par semaine. waaw 3 millions 600 3 millions 600 par semaine loolu soxla de. soxla kay soxla 3 millions 500 par semaine. par semaine. xaaral ma wàcc. su ma ko jàngoon dina dégg. yow dernier bi mooy wàcc. sama néegis amee moo war a ñëw kon. perte la am. 3 millions 600 par semaine. 3 millions 600 par semaine ma jàpp. doxal doxal amul garaaw c'est pas grave doxal amul garaaw bala doxal ñu dox. bala bala. voilà. allo allo waaw Moustapha waaw oto bi mën nga koo indi si buntu bi nii dafa mel ni sama heure jot na de ndax damaa war a dem soxna si damay xaar quoi